dëkk bii ba ko sëñ Touba sos la nga xam ne loolu la loolu la jublu woon bëggoon ko loolee ñu fas yéene sàmm ko waggar ko ba dara du ko ruur dafa am lu jamono jii loo xam ne dañoo daje dafa tolloo ak moom muy wàll politique ñu gis ni politique moom ñun ñëpp dégg nañ ci kàddu yi Cheikh Modou Mountakha mu wax ne li ko gën a naqari si dëkk bi mooy ak àggoon na ci wax ni sax wote yi ñu dëgmal su ma nee nekk bu nu wotee ci Touba nañ toxal bureau de yi ginnaaw bi mu defalaat tawféex waa dëkk bi xam ne diggante bi xat na Serigne Bass leeral na ko yaakaar naa ñëpp dégg nañ waaye nu bëgg woo nag suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy def politique. mooy bu nu sañoon newuñu kenn benn homme politique bu mu ñëw kër sëriñam newuñu benn homme politique bu mu ñëw Touba loola sëriñ bi waxu ko digle ko santaane ko Touba ku bëgg ñëw na nga ñëw ku mu mën a doon ak activité boo mën a def sëriñ bi mi ngi fii boo ko yittewoo boo ñuy man koo gis waaye ñi ngi sàkku képp kuy ñëw bu fekkee ni politique la yëkkati na nga fexe ba la ngay organiser nga defe ko feneen fu dul Touba.